రాజకీయ మరొకసారి నగరు సోరు వరి సోరు విటోరు వరి ప్రజాదారు అంకిపల్లారు ప్రిమి రెసిడెన్స్ ప్రజాదారు bi nga xam ne mooy demeure structure à la quartier de carte plateau capitale du Sénégal construit en 1902 800 ne pare xaw naa yàgg tuuti mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat lu xaaral di ba xam kii woote ba ko jot président de la République kooku kan la war doon ak fan lay woote salaamaaleykum allo waa soxna Nabou ça va bon a bi 3 tonnes la quoi ki gerte ceeb bi 3 tonnes la. waaye. Euh, yoo xam ni damay yeb gaaw ah, may daw bariwul kat 160 rek laa koy teg yokk musique bi mu xumb ay ca emprunté bi encaissé man day fi mu ne sant naa yàlla encaissé naa lu toll ci daanaka trois cent mille te màggal gi ñëwagul. allo ah, allo sëñ bi. waaw sëñ bi. waaw. est-ce xam nga fi nga woote. kooku nu ngañ saar sofóor. de yaa ngi woote biir palais de la république. palais. palais. yee palais kay xaaral ma. gaaw déglu ma eh déglu ma déglu ma déglu yaa ngi may waaw boo coupé fi nga toog xam naa ko. détecté nan sa téléphone gendarmerie léegi léegi la la fay fekk xam nga yow sa saar gi lan doon wër déglu ma rek déglu ma yow yéen yéen da ngaa jot ci bakkan bay ñandu yow waxagunu affaire màggal waxagun sax màggal des na ñëwagul nga commencé naan jëli location di daw cent soixante xam nga yéen yéen rey nit ñi sëñ bi ngir yàlla déglu ma non déglu ma dama lay wax waaw wuyu ma dama lay wax danaa la jox fukki junni yéen bu fi fur bu ne lan naa la jox fukki junni ah dag may korom waaw defal déjà. ah yow tu essaies de corrompre un agent. damaa juum xam nga li may wax déglu ma sëñ bi dama lay wax dama lay wax déglu ma. waaw déglu ma. waaw. tali bi li muy rey. waaw. feebar sax reyu ko. loolu moom dëgg la moom. guerre sax reyu ko. wallaay. est-ce que am nga dégg. ñoo sikk rek ñun bilaay ñoo dëng rek. oto yi ngeen yor. wallaay baaxul. wallaay normalul. wallaay ni ngeen di dawalee baaxul. wallaay ba nga bëgg a yab ay ñeenti voyage juróomi ah, voyage man man nag ma sànq bakkani jàmbur yi. ma maa ngi jégalu man man li ma def ci soog bariwul man di soog soog rek laa defagul xam nga ni kooku kay neex naa nag ja jàppale. dimbali ma rek te yàlla tax. xoolal ma def soog bariwul di soog laa def. rek te te te te daanaka soog ya ma def. Eh, ka ca gën a métti la ba métti la eh, rasu gaa dagg. déglu ma sëñ bi déglu ma déglu ma non déglu ma rek xam nga xam naa sa tur xam naa fi ngay wootee sëñ bi baal ma te déglu ma rek dinaa yebal gendarmerie yow sa permis dinañ ko saisir sëñ bi sa permis dinañ ko saisir yow doo am permis doo am sëñ bi danga ngir yàlla laa la wax wax ma foo ma sa numéro am na ah, mën naa ci yónnee xaalis. non déglu ma rek dama lay wax rek. waaw boo ko ci yónnee dootoo yónnee ci àdduna. ah waay ci kaso bi. waay yaa ngi may déglu ba bàyyi leen seen ñu ñàkk fay dañuy ngeen leen agent yi ci tali bi respecté leen policiers yi respecté gendarme yi dee leen dawal normal. dégg nga wala déggoo ma la prochaine fois lii bu amatee fi nga nekk dinaa woote dinañ la jël si dinañ la tëj ci bu soobee yàlla dara dootu jàmm. dégg nga bu soobee yàlla ma damay delloo sax avance léegi votre correspondant ah, ne peut pas pour le moment veuillez appeler intérieurement.